maa ngi leen di nuyu di nuyu délégation bi ma àndal ñu jóge dixième di wax ni tey dañoo marche tey tenue de combat la ñu sol dañoo jóge dixième riiral dox ñëw ba fii monsieur le ministre de l'artisanat Pape Amadou Ndiaye suñu càmmeñ càmmiñu jigéen ñi moom mi tax ba ragaluñu fi ñu jëm Alioune Sow monsieur le maire ñu ngi lay nuyu di la sa wàccuwaay di la wax li nga def comme mënu ko di wax jërëjëf di rafetlu lool taxawaay bi di nuyu nag koo xam ni su ma ko fekkee ci mbooloo muy sama kilifa damay jël nuyoo jigéen ñi yëpp teg ko ci loxoom muy Adja Mati Ndiaye maa ngi lay nuyu Adja Mati balu ak Adja Macky sonnal nañu la lu yàqu nga ñëw sapeur pompier jërëjëf Ndiaye su ma la fekkee ci mbooloo il faut ma jox la sa wàccuwaay ba mu mat sëkk may ñëw nag di nuyu kenn koo xam ni kenn koo xam ni ah xaw ma nu ma koy def muy madame le maire Adja Binta Bass

comme ni nga ko waxee wàllu euh, ñetti wax la suñu ñëwee woteel Cheikh Adja Binta Bass mooy woteel suñu bopp jigéen ñi woteel monsieur le ministre Yankhoba Diattara muy mairie de ville woteel liste départementale ah Pape Siré Dia ndaxte nag dafa jot Thiès dafa war a génn opposition Thiès dafa war a ànd ak pouvoir pour ñu eggalee ñu chantier de Thiès yi nga xam ne président Idrissa moo ko initié donc madame Binta bi moo ko dogloo su ko intérêt woon kon du ñëw fi sax di sonn dama koo yërëm dama koo ñeewantal ndax bi ñu ko investir ba léegi tëddul nelawul muy jigéen bu mën góor ndax jigéen bu am endurance jigéen bu sell jigéen bu am gis-gis bu sori donc jigéen ñi jox leen xam leen ñun ñoo aye ñun ñoo moome damaa bëgg au soir du 23 ñu xam ne jigéen ñi kat lañ doon wax dëgg la ci moom wane nañ ko may gërëm ñëpp di sant ñëpp jërëjëf jërëjëf tey nag yàlla daf ñu may ñun chance président de la république Macky Sall ànd ak le président Idrissa Seck jox ñu jigéen joo xamante ne pour mu jiiteel bi suñu liste zone ouest jox ñu jigéen ju baax jigéen ju maandu jigéen bu ragal yàlla jigéen joo xam ne dafa bëgg waaw góor loolu mooy suñu chance ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk ci zone ouest damay toog ak moom ma ne ko soxna Binte man xaw ma sa yaay waaye man leer na ma ne yow sa yaay jigéen ju baax la ndax liggéeyu ndey moo la may lii le maire sortant avec pas-pasam taxawaayam nekk sa ginnaaw un candidat potentiel muy le frère Ibou Ba jël logistique am jëm taxawaayam yëpp. boole ko tekk sa ginnaaw. man docteur Pape Amadou Ndiaye te ku xam ne que tey jii bi ñuy wut fii ci zone ouest bi su ma neexoon laajte ko ñun ñëpp ñu topp suñu ginnaaw nekk yow la ñuy yaay jiite yaay nekk suñu maire incha allah kon yow xam naa ne yow sa yaay bu liggéey kon ñun nag suñu àndee Bok ndey bokk baay tey jii léegi mu def fukki fan di des ci élection jëm élection yi bareetul mais taxawaay bi dafa rafet bés bu ne xale yi ñun la ñuy àndal ñuy dugg kër par ak engagement di leen expliquer les projets et le programme boo xamante ne mooy projet ak programme bi ñu am pour la zone ouest projet programme boobu nag yéen ndaw yi da ci am part bu mag ndaxte xale moo tax wolof daal dafa ne ñay si xal mabal doom jaa tax sunu ambition donc moom mooy que la jeunesse ñu am ay set de sport yoo xam ne dafa dayoo ak jamono parce que Thiès ba tey des na war nañu am ay école ay centre yoo xamante ne xale yi stade bi multifonctionnel dinañ fa mën a def basket handball ak leneen bëgg nañ def ay terrain yi nga xamante ne ay terrain yoo xam ne dafay am gazon sunu jeune frère monsieur le maire door na ko parce que commencé na au stade bi nga terrain bi nga xamante ne moo nekk terrain dund pour que xale yi mën fa liggéey inshallah sunu ambition mooy fi mu teg tànkam dañ koy continuer dañ ko bëgg def un terrain gazonné avec des lumières loolu la ñu bëgg def ci Thiès dans chaque quartier. dañu bëgg def ay hôpitaux poste de santé yi nekk Thiès yëpp à l'image de monsieur le maire on va élever le plateau technique des postes de santé dañu bëgg benn hôpital de niveau 3 ou de niveau 4 yoo xam ne dafa mel ni hôpital bi nekk Touba parce que Thiès war na ko mën a am ndax suñu hôpital bi dafa commencé ma hôpital boobu nag dañoo bëgg aéroport bi port bi ak pétrole bi par problème bu fa am retour bi foofu la war a nekk bëgg nañ ay hôtel de ressources pour l'aéroport ici à Thiès bëgg nañu cimetière yu yaatu ma ne suñu naree wax suñu bëgg-bëgg ci Thiès yëpp duñ fi jóge ndax suñu bëggee ak suñu cofeel ci Thiès moo ni toll dama ne les jeunes jóg leen suñu ambition yéen ñëpp xam leen ne li ñuy xeex dootul suñu bos seen xeex la femmes yi takku leen le 23 à 8 heures bu leen kenn jiitu ci urne yi ngeen dem voté trois fois bu jo marron beige bi ñetti yoon ñetti mand la mand mu nekk nga def ci marron beige mand bi ci top nga def ci marron beige mand bi ci top nga def ci marron beige muy victoire boo xam inshallah incha allah à 18 heures elle sera éclatante ndaxte ma wàcc ma la yaa maa la yaa maa la daan wàcc ma amul ki daan ci kawam lay toog te ñun inshallah allah ca bés ba dañ toog ci kaw ñëpp yàlla ñu koy may maa ngi leen di sant di leen gërëm Monsieur le ministre de l'artisanat et de la transformation du secteur informel, chers collègues, chers amis, chers grands frères, docteur Papa je vous salue, je vous respecte et je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le ministre, parce que, Monsieur le ministre, cette Satewai, au niveau de tchèque ouest ce teewaay aux côtés de notre sœur notre candidate Adja Binta Bass doy na président de la République du monsieur le ministre c'est teewaay mot na président Idrissa Seck République wetu Adja monsieur le ministre. teewaay mot man sama teewaay ci wetu Adja Binta Bass sax président de la république ak président de Seck tànn la teg la loxo am yaakaar ci yow pour projet vision yi ñu am pour suqali Thiès ce collège ouest parce que dañ ko teg fu leer kon madame le maire li ma la wax moo ci nekk ñooñu duñu la seetaan président Idrissa Seck du la seetaan

Comme les élections élection yi du élection rek fal Adja comme maire de Ouest wala fal jadar comme maire de ville wala fal président Sireja comme conseil départemental parce que la vision du chef de l'État la vision du chef de l'État son excellence Macky Sall pour aller vers l'émergence il faut des terroirs viables porteurs de développement viables comme il est dit, de développement durable. Et pour cela, il faut des communes émergentes, il faut des villes émergentes. Et pour cela, il faut un leadership fort, incarné par les maires, incarné par les leaders forts. Et on sait qu'à Thiès-Ouest, Mme Bitabas va incarner le leadership féminin fort pour développer cette commune de Thiès-Ouest.